ah waa honorable ndax mën nañu xam euh, déjà sa réaction par rapport ak euh, victoire bi nga xamante ne moom ngeen annoncé ne moom ngeen am foofu foofule euh, ca département bi et surtout wax ñu lan moo nekk seen stratégie lan moo nekk lan moo doon secret wu victoire bi ak lan moo ko lal. dara victoire bi li ñuy njëkk wax mooy sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu mag yu baax ñi waaye Cheikhul Khadim Sëriñ Muntaxa Al Bachir mi ko fi teewal ci kaw suuf sant suñu ñaari waajur yi nga xamante ne fekkewuñu li nga xamante ne mooy li ñu dal tey ci biir Pikine ndax eh, mbég la doom bu nekk moo sañoon am na foo xamante ne bu fa nekkee nga fekke ko kon ñoom ngi sant suñu waajur bu baax alaaji daaw de femme eh, nga xamante ne comme ni ma koy waxee toujours dafa yàgg ci département de Pikine def lu baax mais aussi dafa yàgg ginnaaw raay am lu mu fa liggéey di sant ñëpp nag ah, ci Pikine victoire bi nag pikinité moo ko lal pikinité Pikine dafa gis boppam ci listu Yewwi Wallu bi ndaxte Pikine dafa yàgg teg ay nit ñu dem assemblée national fàtte ko bàyyi ko duñu duñu wax kon Pikine ah, tey ah, moo sentir boppam ci fam Pikine moo sentir boppam ci euh, ki nga xamante ne Pikine moo sentir boppam ci Aliou Bey Moussa Fall Pikine moo sentir boppam ci cinq députés nga xamante ne muy Fatou Gueye muy Ndiaga euh, ci ñooñu la gis boppam kay euh, wax dëgg yàlla daal di def changement bu radical te aussi gagné bi on a gagné avec la manière bureau de vote bu ci nekk yàlla dafa def ni dañ ko gagné largement au double et au triple loolu nekkul victoire bu ñuy wax ne moom la ñu am victoire bu abere la terre la boo xamante ne c'est dans tous les centres et dans tous les bureaux de vote wàllu a gagné très largement mais yéen wàllu dafa yàlla dafa def ni ki nga xamante ni moo ko jiite di le président Abdoulaye wat président Abdoulaye Wade Pikine mooy Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade égal Pikine donc démb bi mu ñëwee jàjjaat nañu yëkkatiwaat yi wax dëgg yàlla joxe mot d'ordre bi nii wàllu ak yeewi laay bote moo tax yàlla def ci barke loolu laa la bëgg. Euh, jaajëfal euh, mi ngi noonu donc euh, honorable député Mame Diarra Fam waaw Barka ñu wéyal waxtaan wi. waaw dama doon wax ci toujours si on est